asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokki Tivaouane yëpp di nuyu mbokk Sénégal yëpp di nuyu aussi donc suñu xalif général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mansour à travers moom aussi ñu nuyu kilifa diine yëpp ñu nga xam nekk nañ ci Sénégal di nuyu aussi le président de la République Bassirou Diomaye Faye nga xam ni donc pour la première fois benn président daal di démarqué wu nekk aussi ci biir euh, nest pas nekkoon ci parti ñëw génn ci position ya mu nekkoon yëpp poste poste ba nekkoon yëpp ngir yilif Sénégal gi yëpp sans exception kon taal na loxo ñëpp di nuyu aussi Ousmane Sonko le président du parti Pastef ak ñëpp ñoo xam ne topp nañ si ginnaawam wante aussi di nuyu donc euh, Aline Badara Mboup mi nga xam ni mooy coordinateur Pastef Tivaouane ci xarañte fa mu xalaat loo xam ne vraiment musu fi am de ce fait donc euh, pour accompagner aussi le le président Bassirou Diomaye Faye ci wàllum set setal bi nga xam ni woote na ko ci capacité d'anticipation ci la ci la tëralee projet bi ñuy wax projet Tivaouane quartier propre et vert muy loo xam ni musu fi am ñu ciy ànd ak may coordonnateur nag projet bi ñu ciy ànd ak suñuy euh, n'est-ce pas naataango Pastef donc euh, kii mooy vice coordonnateur di El Hadj Malick kii nii di El Hadj Malick nekk secretaire général projet bi kii di Kiné Somaré nekk aussi wàllum organisation kii di Omar Dramé nekk chargé de communication ak suñu papa donc Saliou Ley moom nga xam ne moo nekk ci comité scientifique di di nekk ci xalaat mi ak ci xarit bi voilà donc projet bi nag li muy visé mooy wàllum citoyenneté wàllum propriété wàllum civisme bi nga xam ni le président Bassirou Diomaye Faye woon na ko Sénégalais yëpp sans exception suñu waxee Sénégalais sans exception nag tudd nañ ñëpp beddi wuñu kenn moo tax projet ba mu ñëwee bien que Pastef à travers le coordonnateur Aliou Badara Mboup moo ko xalaat ci xarañteefam bind ko partagé ko nit ñëpp lu ko muy consister lan moo ñuy def benn concours boo xam ni quartier Tivaouane yu bëree bëri ñoo ci joŋande ci wàllum set ci wàllum reboisement mooy jëmbat garab ci wàllum aussi donc euh, organisation quartier yi dans le sens nest pas d'embellissement voilà koo xam ni mën na rafetal quartier ba nga xam ni mooy loolu te bañ cee xaar kenn ainsi donc waxuñu euh, yabu euh, dañuy quartier bu nekk am na benn comité aussi comité ba nag day composé wu ci pré n'est-ce pas ci AIC di composé aussi ci mbootaay yi nga xam nekk nañ ci quartier ba yëpp di composé wu ak ñi nga xam ni ñooy chef de quartier yi ñooñu ñëpp ak seen mbootaay ak seen délégation ak ñi sës seen ginnaaw ku ko tudd rek xam ne tudd na quartier ba yëpp de ce fait donc quartier ba yëpp ñoo war a mobiliser wu booloo pour setal parce que moom xam na ni bu ñu doon mobiliser nit ñu dul jeex pour sànni leen ci quartier yi aussi am na loo xam ni ci nit ki la da war a dépendre lu ko président lancé lancé nit ki aussi am na ci participation li Sénégal di wax nag dompet nag ci sot la bokk ñun nag Pastef à travers donc le coordonnateur encore ci xarañteefam mu xalaat lu ni mel ñëpp du ko jàppale ak nit ki fu mënti bokk parce que quartier boobu gis ñëpp fa am buntu kër voilà ku bokk fii ku bokk fii ak ku bokkul fenn donc euh, set setal boobu nag jongante bi nga xam ni quartier bi nga xam ni moo jël pay ci jongante boobu ki gagné day am 2 millions de francs CFA quartier bi ci topp jël deuxième ma ngi am 1 de francs CFA quartier bi nga xam ni moo jël troisième mu ngi am un million de francs fa de ce nag yeneen quartier yi nga xam ni ñoom jëluñu pay jëluñu deux jëluñu trois maanaam ña ca des ñooñu noonu danañ am prime de motivation ngir wane it ngir jàppale leen seen jàmbaarteef bi nga xam ni moom wane nañ ko. donc ci ci ci ci loolu noonu nag lañu ñu woo mbokku Tiwaawan yëpp suñu coordination yëpp jàllale nañ ko fa muy Tiwaawan ak la ko wër muy Sénégal ak la ko wër kon ndar képp nañ fépp. à travers les médias ma ngi fay jàll ak fépp voilà donc euh, ci situation yooyu noonu le 2 nag ci lañ jàpp nag journée de lancement bi maanaam ca lay tàmbale 21 quartiers war caa jongante ci façon tànn ba ñu leen tànn nag dañu waxoon quinze lañ doon tànn mais quartier yi dem ba 21 ñu pousse ko ba 21 ndax ñoo ñoo njëkk ñëw am na yeneen quartier yoo xam ni ñoo nga wootee tout le temps voilà tànkam lu leen tamit ñoo ngi leen di dégg te wax nañ leen tamit ni leen donc euh, affaire bi nekkul loo xam day yam fii li première édition la di continuer tout le temps par rapport ak décision yi nga xam ne comité bi jël na ko par rapport ak décision yi nga xam parti bi ak seen xarañteef ak seen comité scientifique yi xalaat nañ ko danañ xool nañ koy élargir voilà donc le deux ñoo ngi woon ñëpp ak mbootaay bi mbootaay yoo xam ne fu ñu mënta bokk quartier yi bokk ci challenge bi ak yi ci bokkul ñu dëkk ci waaw nag ñi ci dëkkul maanaam Sénégal yëpp fu waay a jógee ñëw bokk ci projet parce que lii nii gëm nañ ni ñun bis bu jàllee incha allah te gëm nañ dina jàll Sénégal gi yëpp ñoo koy partagé te ça va efficace parce que projet bi en 2025 lu ñu bëgg mooy bu ñu yeggee 2025 rek Sénégal gi yëpp naat Sénégal gi yëpp set ca biir néeg yi ca biir kër ya ca mbedd yi ak ci gox goxaat yëpp lu mu ruqe ruqe ñuy ñaan ñëpp ñu ñëw teew ci acte de service boobu noonu ba nga xam ni nit ñi ci waan concerné nañu. ak feneen yeneen yi gox goxaat yëpp am na quartier yoo xam ni dangay ngay gis ñu tuur ndox am na quartier yoo xam ni da ngay gis mbalit mi day nekk fenn ku nekk di xool sa moroom loolu noonu yëpp bëgg nañ koo dindi fi am na ñoo xam ne par rapport ak reboisement xamuñu ni ñu ko war a doxalee parce que garab du ñëpp koo xam ab liggéey la am njàng la moo tax parce que nag ñëpp xam nañ lépp lu ñu jiital dañ ciy jiital xam-xam dañ ciy jiital xara xarañteef dañ ciy jiital ña nga xam ne ñoo ko xam ñun ñii de ci comité bi lañ bokk ñun waa Pastef ñii ñi nga gis nii mais comité bi am na ñeneen ñoo xam ne lu ñu leen soxla uniquement seen wàll xam-xam ko xam Eaux et xam ne ñooñu ils sont apolitiques képp ko xam ne service d'hygiène xam ne ils sont ak waa SONAGED yi nga xam ne ñoom ñooy gérer wàllu mbalit bi ñoom ñëpp joxoon nañ seen accord muy lieutenant Eaux et Forêts bi muy service d'hygiène muy waa SONAGED à travers directeur bu Khalifa ñu ko rencontré ñoo ngi rafetlu li mu wax wax na élément yëpp ñoom maada ak ñi ca topp ñëpp ne leen ñii nag lépp lu ñu bëgg sans exception defal leen ko parce que ñun lañ koy jàppale ñun lañ koy jàppale suñ ko waxee mooy Tivaouane gi yëpp lañ koy jàppale parce que fu set du waa quartier ba rek ku dëkku ca quartier ba sax da nga fay romb bu sa yër ci libee mooy loolu te képp kuy wax Tidiane wax set donc dina ñaaw lool nit koo xam ne dafa jóge fu ne di dégg wooy dégg naan taalibe Cheikh dafay mën a sañse mën a set mën a civilisé donc set ba ak sañse ba ak civilisé dafa war a waru feeñ ci jër yi donc waru xeeñ biir feeñ ci biir xadara bi rek warul xeeñ ci biir kër ga rek kon jaamu yàlla ëpp na loolu ñoo ngi ci ñaax sénégalais yëpp ci wax ñaax Tiwaawan yëpp di aussi wax ñëpp ñu nga xam ni ci gox bu ñu mënti bokk ak tarixe bu ñu mënti bokk ak parti bu ñu mënti bokk ñu ñëw incha allah jàpp ci bis bi voilà incha allah jërëjëf question bi am na solo jury bi képp kuy wax jury xam ne jury nag ñu war a neutre lañ raison pour laquelle lépp lu ñu gis Pastef anticipé na ko ñi nga xam ne ñooy conseil juridique bi mooy des éléments neutres wax naa sànq ñi nga xam ne dañoo voilà ci laay jàll ñi nga xam ne dañoo apolitique service d'hygiène wax naa ko eaux et forêt ñooñu ak ñeneen ak SONAGED ak yeneen partenaires yoo xam ni ñoom ak ak SONAGED ñoom ñëpp wax nañ leen ñooñu noonu ñooy conseil juridique bi te ñoom ñëpp d'accord nañ ci ñoo ngi ci biir comité bi te ñoo ngi def ay réunion toujours a travers WhatsApp te ñoom ñëpp rafetlu nañ ko ànd nañ ci à 100 pour cent du seen benn élément ma ci nekk mais seen ay élément ñoo si ne ñuy def di partagé wu yëpp tout cela ndax ñoom ñëpp xam nañ ni lu ñu bëri bëri bëri mënuñu dugg fépp lu ñu bëri bëri mënuñu jaar fépp te bëriwuñu sax ndax dañu néew ndax li ñuy def yëpp ci effort taxul mbir mi mën a jag loo tax ñu xalaat comité boo xam ne ñii faraluñu kenn parce que service d'hygiène eaux et forêt faraluñu kenn te ñoom it ci wàllum xeeñteef ku wax hygiène xam ne nag service d'hygiène ko xam képp ki wax reboisement xam ni eaux et forêts ñoo ko xam képp ci wax wàllum mbalit xam ni changer lañ ko dénk ak yeneen acteur yoo xam ne aussi dinañ tudd ñoo xam ni intéressé woon nañ ci wàllu mbalit ñu tuddaale alo ordure ñoo nga ci ay jigéen ñoo xam ni ay jàmbaar lañu ñoo xam ni dañoo créer seen seen entreprise rien que pour accompagner Sonaged loolu aussi donc euh, ñooñu ñu tudd noonu ñooy nekk membre jury bi voilà donc euh, ku wax critère xam ni prévoir nañ ndax ku wax jury wax notation ku wax notation wax base de notation de base de notation il faut dafa am ay critères des paramètres de position ci paramètres de position yooyu noonu membre jury bi ñoo ko déterminer ñun dañ leen am na grille de notation par rapport ak reboisement bi ay critères ñoo ciy nekk loolu wax Eaux et ñu koy ñoo koy joxe ñooy noté foofu am na critères yoo xam ni ci wàllu hygiène maanaam ci yoo xam ne ñu toj tuur euh, euh, ci mbedd meek yu ni mel d'une manière générale ndax waa service d'hygiène tamit dañuy wàccaale ci mbedd mi di vérifier waale loolu tamit mat naa leeral di waxaal tamit waa SONAGED ci wàllu mbalit meeg yooyu ñoom dañoo pare ñoom sax lu ñuy wax mooy chaque jour bu ngeen ñu woowee ci terrain bi ñu ànd ak yéen donc ci planning boobu noonu am nay visite yoo xam ne dina am ndax affaire bi du benn weer du ñaari weer ñeenti weer la 4 mois le 2 bi lay démarré le 2 août bi ci fii ñu nekk nii muy maison de la jeunesse à partir de wante mbir mi yamul fii day dem ba le mois de novembre muy 4 mois ci diggante boobu noonu am na ay inspection yoo xam ni les membres comité bi ak jury bi d'une manière général ñoom dinañu dem ci quartier yoo xam ni ce sont des visites yoo xam ni day nekk visite surprise ndax il faut ñu évaluer before and after ñu évaluer aussi en cours aussi parce que ñoom loolu lépp ma ci suñu planning incha allah dinañ ko gis ci chronogramme bi après nu muy demee dinañ ko envoyé quartier yi yëpp ak média yeeg ensuite bu fekkee tamit euh, jury bi ak par à travers ces de notation suñ demee ba fin bi quartier bu nekk ci rubrique bu ne paramètres yooyu noonu borom xam-xam yi mën tudd noonu war koo def ñoo leen note noté jury bi ñoo xam dafa neutre ñoo leen noté bu ñu leen noté nag note finale bi à travers rang lay nekk ki jël P ki jël 2 jël 3 ba ca fin bu ko defee nag raay yi ñu jox ko ña ko yayoo incha allah noonu lay demee. d'accord euh, financièrement da ngeen am ay partenaires wala au niveau de la commune euh, léegi moom Pastef màgg na am ngeen xaalis parce que millions. lépp lépp boo ko dajalee daanaka ça fait 10 millions. Uh-huh. donc euh, financièrement ci lan ngeen fas képp xam ni mbirum état. day continuer ba ci démembrement bi yëpp képp ku xam ni l'état budget de prévision lay nekk képp xam xam ni bépp beneen démembrement yëpp day am budget de fonctionnement léegi ni mu demee noonu à travers les partenaires parce que le cordinateur dem na fép foo xam ni n'est-ce pas bokk na ci Tivaouane parce que lii yemul ci fenn ñëpp la ñëpp. voilà moo tax ba léegi nekku fi il y a yi nga xam ne romb na Tivaouane ñun ñuy doxal Tivaouane moom ñuy doxal euh, Dakar a travers les ministères à travers les partenaires à travers les directeurs ñëpp ñoo xam ni mën nañ jàpp ci projet mu wax leen ko sans exception pour nga xam ni kenn du wax man de waxuma képp ku ko déggit même boo joxewul boo ko defee sa carte rek dafa mel ni participation boobu am na. voilà donc loolu liste la dinañ ko dinañ ko bind. liste ko ba mu normal ndax boo waxee tuuti rek daal di bañ a lim ñi frustration mën na am. incha allah vendredi dinañ ko listé yëpp. répété ko parce que donc formalité moom ak formel ci Pastef la fekk baax. voilà salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen sant je présente comme étant le vice coordonnateur El Hadj Malick Amar nekk membre Pastef aussi. waaw par rapport ak euh, sa réponse sa question dinaa la apporter réponse par rapport ak déjà journée de lancement bi parce que bu ñu convoqué euh, quartier yi nga xamante ne si ñoo bokk fii au niveau du euh, de, la salle de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté bu ñëwee dañ leen recevoir conscientiser leen informer leen sensibiliser leen en plus ñu doter leen des matériels de nettoiement et des plante de reboisement léegi nag euh, à travers cela dañ leen di situer sous forme de tirage tirage au sort boo xamante ne si moom mooy éla élaborer date de passage yi les quartiers bu nekk di nga xam ban date ngay jàll léegi par rapport à cela ñu ni leen dina am commission de surveillance bu fiy ñëw de d' inspection moom mooy nekk jury bi léegi nag bu ku def sa journée de nettoiement et de reboisement da war a xaar à tout moment que kii dina ñëw pour évaluer la mooy jury bi dina ñëw pour évaluer la mais nag à travers cela bu ñëwee évaluer xool par rapport ak set gi waa SONAGED caytu ko ak waa service di d'hygiène par rapport ak plantation bi ak suivi bi euh, reboisement bi ak suivi bi euh, waa eaux et forêt ceytu loolu def defal ay points yoo xamante ne si globalement ci loolu la ñuy sukkandiku pour def classement bi. donc euh, reboisement bi am yéen yéen a leen ci lancement bi dañ leen jox doté de matériel de nettoiement et des plantes de reboisement mais aussi quartier bu nekk. comme compétition la ci say feem man nga wut say partenaire yokk sa ay garab xool ban concept ngay utiliser pour def sa plantation par rapport ak par rapport loolu dafa am loo xamante ñoo xamante ne si ñoom ñoo koy gérer mooy service euh, eaux et forêts ñoom ñoo euh, ñoom seen xam-xam màcc ci wàllu garab ak suivi parce que garab boo ko jëmbatee aussi bàyyi ko noonu te protéger woo ko du du di nga ci bëgg doo ko ci am léegi par rapport ak suivi bi protection boobu ci la nekk par rapport aussi garab gi nga xamante ne si jëmbat nga ko bu yàgg te amul suivi aussi loolu aussi mën na la ñàkkaloo ay points loolu lépp ci suivi la la la bokk donc plantation reboisement et suivi ci la grille de notation boobu di nekk par rapport ak euh, kii bi reboisement bi. di leen euh, jaajëfal di nuyu euh, média yi Ndox TV. Asfiya yi kàddu askan wi ak groupe Damel groupe Damel maa ngi leen nuyu ak GPTV waaw ci euh, wàllum organisation bi man Kiné Soumaré maa nekk ci wàllum organisation bi di rafetlu kàddu yi fi sama càmmiñ ñi wax di ko wax ni ci waaw ñëpp lañuy woo ndax euh, bale ak reboisement kuñ ci woo danga cee war a sawar surtout dëkk bu mel ni Tivaouane nga xamante ni gàmmu fi lay xewee ziyaara fi lay xewee tout le temps ñun ñu ngi ci ay événement ndax dëkku religieux la du nuy suñu xalif bi di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di wax ni bis bi nag ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn Tivaouane ay yi surtout la jeunesse ndax xale moo mën a bale moo mën a reboiser moo mën a arrosé moo mën a moo mën a moo mën a setal mu set di ci woo tamit jigéen ñi lu tax ma ci woo jigéen ñi ndax Tiwaawan daan nañ fi bale avant balayage bi suñu président di ko di ñu koy fal muy muy def lu baax lii nga xamante ni bale ak reboisement ci ci wàllum santé la bokk jigéen ñi daan nañ ko def quartier bu nekk daan na ko def mais dañ leen ci woo tey nag dañ cee woo quartier yëpp lañ ci woo quartier Tivaouane yëpp la ñu woo dinañ ci invité pour ñu ñëw ci suñu lancement wu vendredi bi à 15h di ci woo ASC yëpp groupe de femmes yëpp di ci woo waa hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh maa ngi ñu ngi leen ci woo di ci woo waa euh, eaux forêt di ci woo waa fële euh, service d'hygiène ak bàyyiwuñu bàjjenu gox yi bàyyiwuñu tam groupement de femmes yi fi nekk Tivaouane bàyyiwu leen bàjjenu gox ñu ci woo askonde ndax moom moo fi présidente bàjjenu gox yi ndax ku ni bàjjenu gox di nga say li ngay rencontré ak say bàjjenu gox dina bari te boo leen waxtaanee ñoom ci wàllum set ak wàllum reboisement dinañ ci sawar moo tax as ñu koy woo pour mu teewee bis bi ñun daal bàyyiwuñu kenn pratiquement. Ah, merci beaucoup Xasim euh, man maa ngi tudd Omar Dramé euh, nekk ci comité bi comité de pilotage euh, challenge Tivaouane quartier man maa nekk ci wàllum communication charge de communication. di nuyu média yi fi nekk yëpp muy YouTube bi wala média en ligne ak ñëpp. ñoo xamante ñi déglu déglu di nuyu seen auditeurs yi tamit di nuyu ñëpp di am mbégte lool ci jàkkaarloo ak askanu Tivaouane askanu Sénégal di lancer appel bu ko defee li nga xamante ni sumb nañ ko ñëpp fekk si ñu si mu am réussite parce que tamit euh, c'est une première muy loo xam ne innovation la Tivaouane nawetaan lañ tàmmoon ci jamono yi nit ñaa ngi def ay shooting moyens yeeg yooyu noonu mais tamit ñun ñu ngi def suñuy euh, activité yoo xamante ni mën nañ leen accompagner si nawetaan yi parce que lii mën naa ne nawetaan la nawetaan autrement bu ko defee quartier yëpp jongante jongante boo xam te ne c'est c'est da ngay gagné kenn du perte parce que quartier bu participer rek gagné nga li ngay gagné mooy sa environnement sa cadre de vie te loolu mun naa ni dinañu dimbali ñun askanu Tiwaawan ñu mun a am euh, beneen beneen mindset ñu amaat beneen gis-gis ci suñu gox ak suñu dëkk parce que cet mooy mooy lépp diine sax set moo ko lal ñi ñëw nag si li nga xamante ni mooy euh, question bi proprement dit ñëpp képp koo xamante ni tey jii ni participé nga si mu groupement de femmes ñi daan bale seen mbedd yeeg ñi daan organiser ay set setal yooyu yëpp dañ leen a may tey occasion ñu def ko ba noppi ak motivation parce que bu ñu la tegalee prime ni la kat lii jongante mooy tax nga jël ko tey jii nii bu xoolee Sénégal barki démb président ak euh, son premier ministre Ousmane Sonko dem nañu Grand Théâtre doon primer les meilleurs élèves du Sénégal tey jii nii ñun tamit dañoo bëgg a primer les meilleurs quartiers du de Tivaouane ñoo xamante ni si wàllum reboisement ak set setal ak euh, même sax les calligraphes yi nekk si quartier mën nañ see participer ah génne seen talent dessin quartier yi xam nga peintre ko et tout ça bu ko defee duñ ko yemale ci bale ak reboisement kese mais dañuy indi valeur ajoutée si quartier yi loolu dafay day day nay naatal quartier yi quoi loolu lañ bëgg parce que bu teewoon quartier bu setee Tivaouane mooy jariñ te dëkk lañ dëkk la boo xam ni dañ fi nit ñi dañu ñëw di fi visiter ville touristique la gàmm yeeg ziar yeeg ainsi de suite te tamit bu ñu sañoon mu am beneen xar kanam loolu daal ñu si woo ñëpp di si woo waa Kuli Ngijaan gi ma dëkk ñu ñëw massivement gagné affaire bi ah Arafat Est Kër Bakar Kuli Aynu Madi HLM Bulayda Diallo Kër Xaali Kondiaka Selko Ona Kër Ndioba Kër Baba Alima Kër Cheikh Ahmed Tidiane Serif on a Thiand Kër Pend Yeri Taïf Minam et en enfin la euh, Fogni waaw mooy 21 quartiers yoo xamante ñi ngi en compétition pour challenge euh, Tivaouane quartier propre et vert waaw ñi si ñi ñi ngi woone képp koo xamante ni vraiment autorité nga nekk si dëkk bi si Tivaouane wala boo nekkul Tivaouane sax yëg lii nga jàpp ci parce que bu ñu sañoon mu prime bi weesu fii quoi mm. waaw bu sañoon mu jox quartier bi gagné 10 millions deuxième bi ñu jox ko cinq millions ainsi de suite quartier yëpp partout au Tivaouane ñu ngi leen di woo tamit bu ñu sañoon deuxième édition bi day day dañuy coiffé les 84 et 83 xaw ma 5 quartiers du Tivaouane du voilà de